valoriser ko parce que suñ ko bàyyee nii rek. Hmm. billahi wallahi talaay ñoom Mamour Diallo danañ ko rey. lu ma lay wax ni lu leer la. mais comme loi d'amnistie bi am na kay ah. ah? ne comme loi bi wate nañ ko ba fàtte lépp loo xam ne ah, amoon na fi ci wàllum ji ak yi ni mel euh, vous espérez que peut-être que mbir mi dinañu ko soulever pour jéem xool fa la dëgg ji féete ak yooyu. Bamba waaw. Bamba. Mhm. amnistie bi laa bëgg nga dindi. ci sa xel mi xam ne ah, loolu am na si am na nag sëñ de woote nañ ko kenn wootewu ko an kay woote nañ ko de bi may wax que ngeen ñoo ko wootee ah assemblée waa APR yi nañ ko de assemblée e ah? ne e ñoom ci seen biir la rek man maa moom maanaam dafa mel ni tey rek maa am doole lu ma neex ma wax ko ma ma gis benn gendarme boo xam ne tey na ko demal jàppal ma Bamba dóoral ma ko mais xam nga loolu injustice la dara ne nekk ci parce que damaa am doole ji rek def ko loolu la rek mooy kon nuñ jëlewoon Sonko di ko def rek di ko booleeg ay colonel rek ay commandant yoo xam ñu ñëw di ko jàpp te teguñ ko feen mhm. noonu rek lañ ko defee ci assemblée bi. assemblée bi wax naa leen ko nee naa leen nii di ko wate ku nekk député yi xam nañ leen. député yooyu tey nan la ñuy siggee di xool ñooñu ay raykatu nit lañu parce que man li ma mën a wax tey député boo xam ne woote na mhm. amnistie mu def député boobu man jàpp naa la yow raykatu nit nga criminel nga criminel nga mais foog ñuy fàtte aussi jàmm di am ah. gouvernement bu bees bi il faut ñu wàcce def kon États-Unis nu ñuy def def kon Europe nu ñuy def gis nga li nga xam ne mooy justice dafa war a am liberté gis nga fii policier ñemoowu laa teg loxo fii hmm. ñu teg loxo bu lu ci njëkk suy ñëw di wax ak yow fee lay taxaw nga taxaw fee mu laaj la sa carte d'identité nga ne ko lu tax ma lay jox sama carte ndax dangaa dangaa yaakaar ne damaa def lu dul yoon wala da ma soupçonné su la waxee ne la waaw dama laa soupçonné moo tax ma nangam nga ne ko ok maa ngi nii léegi nag ci biir loolu su la laalee ci soupçonné boobu te ci lu la soupçonné gisu ko ci yow yow da ngay na yow topp ko suu ko suuko ko bi mooy da koy topp ci yoon ndax nit ki doo toog nii rek am yaakaar na kii daal yaakaar naa ne bandi la wala yaakaar naa ne lii la te topp bi nga koy topp dañ la ciy fay loolu dafa war a am Sénégal ndax ñu réglé parce que pouvoir policier ak pouvoir yi lu ñu leen jox dafa ëpp mhm. dafay mel ni ñoom moom peuple bi te ñun dañoo yem ñoom dañoo war a garder service ñu ñun ñu respecté leen ñoom ñu ñoom tamit ñu respecté ñu loolu dafa war a am di takk caméra ci seen tër yi ñu defal leen ko nga xam ne tey police mbuxum dootul amati nga xam ne réew mi day dox nekk normal ñëpp gis ci seen bopp loolu moo war am moo tax la ñu nekkoon fële ak administratif ah, kon daal kon daal bu kon daal kon daal su su yow da nga ànd bu jomaay mu daal di ko génnee ñu toppaat mbir yi ñu wax qu'est-ce qui s'est passé concrètement ak les morts d'hommes ngi ci tëj ak ngi ci torturé ñëpp loolu loolu mooy am démb maa ngi gis euh, kii Touré Euh, booy bi sant Touré. Pape Ablaye Touré yóbbu na plaintam. Mhm. Pape Ablaye Touré dem na police centrale yóbbu yóbbu plaintam su plaintoon fu mu nekk nii kenn kenn du ko nangul tey man mii di wax ak yow nii ci kaw lañ nangaan marché Médina Baye sama titre foncier la man maa ko moom Mon Ndiaye Rahma tey wax naa ko ko bu yàgg. sa diggante moom dafa yàgg nag su nguur bi wàccee dama lay topp ndax suma ko toppee fu mu nekk nii du mu jël titre foncier bi dem def ko ci turam. moom ko moom ci boppam sama titre foncier papa jël ko moom ko moom ci boppam te man dama koy topp ci yoon su fekkee ne moo am dëkk mhm. ma xam ne moom moo am dëgg su ma amee dëgg ma xam ne moo moo am ndax man xam naa ne man maa am dëgg ndax titre foncier Baye Niass la nga jël ko def ko ci sa tur gisanteeg xaadim ba la ko seen dégg nga mu jox la financement ngeen dem def lu leen neex rek ñëw teg yooyu yooyu yooyu fan lañ ko teg. ok fan lañ ko teg. léegi sëñ bi l' affaire de Mame également euh, yow aussi sa sa est ce que da nga bokk ci Pastef wala da jàppale Ousmane Sonko wala qu' est ce que parce que dans l' affaire Mame Mbaye Niang apparemment ci lu ma jot a gëstu jotuma la ci dégg lu bëree bëri naka nga gisee tout ce qui s' est passé ak cette condamnation également moo empêché même Ousmane Sonko ñu génne woon ko sur le fichier électoral malgré amnistie bi ñu génn indiwaat ko et tout nga gisee euh, loolu. da doon jaay booy taamu rek wane na guerrier laa nu may waxee noonu ñu dugal ko gis nga yàlla li ma waxoon rek moom laay wax nit mun ngaa def sa pexe bu nekk waaye yàlla rek nga munta defal pexe mhm. mambay ñaa Prodac moom leer na ko lu wóor xam na ne vingt neuf yooyu ñuy wax moom xam na ne ci poche la def parce que moom mii tey Amadou Ba mii tey mu bañ a jàppale Amadou Ba Amadou Ba moo ko njëkk a weeje te Amadou Ba moo ko xeex gis nga Amadou Ba soo gisee lu tax gañewut Amadou Ba dafa nekk nit koo xam ne yàlla daf ko may doole fu Macky Sall def benn nit boo xam ne mooy responsable Amadou Ba def na ci suufam kat ndax yàlla daf ko may doole ci nguur gi Amadou Ba boobu tey moo génne mambay ñaar vingt neuf milliards yooyu product te vingt neuf milliards yooyu ma wax la ko de. waaw du mambay ñaar kese de. ah jàpp ministre de la jeunesse. Malick Ndour. Pape leen fàtte. waaw directeur la woon ci Prodac bi te Prodac yi dag yow yi nga xam ne waroon naa am ci Kaolack ak feneen ak feneen amul de naxante boobu ñuy def loolu yëpp dañ koy auditer de ñëw indi benn teen rek teg noonu defar defar raw déedéet amul de daf cee bokk moom ci boppam te vingt neuf milliards yooyu xam nañ ne bu baax Mbaye ñaar xam na ne il faut ñu demaat justice moom xam na ko. nekk nii. Mhm. dama lay wax ne la affaire yi nit mun naa def. waaw lu loxo def loxo koy dindi xam nga amnistie bi tey mun nañoo wax ne d'accord def nañ ko assemblée wate na ko waaye loi ci droit ci boppam mais mun nañ ko dindiwaat su fekkee ne peuple Sénégal bi yëpp dañ doo ñëwaat ci référendum taxaw ne lii ñu defoon ñun d'accorduñ ci te peuple bi mooy Sénégal suñ ko jëlee dañuy delloowaat amnistie bi génnewaat ko suñ ko génnewaat yëf yi day ñëwaat. ba ci sax Sonko mi dañ koy àttewaat. Hmm. yaa ngi dégg. Hmm. tey jomaay mi amul luñ ko mën a toppee suñ demee ci biir ne nañ àttewaat jomaay niñ ko tëjoon ci tëj bi ci boppam boobaa ñoom ñooy dugg waa APR ñooy dugg ci kaso bi parce que liñ teg yëpp ay naxee mbaay la amul dara lu ciy dëgg ana terroriste yi doon woo ana ñu ana ñu do ak xaw ma nangam nangam nangam ana ñooñu ñëpp tey dara du ci dëgg. yaa ngi dégg. Mhm. réew duñ ko yore ci caaxaan réew duñ ko yore ci fo ñii dañoo yore woon réew mi ci fo ak ci caaxaan ak ci jaay doole loolu nag jeex na moo tax ma ne la Mame Mbaye Niang mu neex mu naqari gis nga Maroc. waaw soo demee foofu ci Casa këram googu mu tabax noonu bu ngand googu ak Marrakech xamal ne du fa dem de ndax li mu yaakaar ne Maroc réa euh, dëkk buur la royaume royaume boobu su fa demee làqatu yaakaar ne pour duñ ko jëli. buñ fàtte ne ñun ak Maroc dafa am lu dox suñu diggante ci koom-koom mhm. Maroc dafa am intérêt ci Sénégal Sénégal am intérêt ci Maroc kuñ ko mën a laaj danañu ko jox su fekkoon nag Arabie Saoudi la daw dem kenn du ko fa mën a jëlee ndax Arabie Saoudi moom seen royaume bi moom dëgg la mhm. ndax amul lu ñu am Sénégal amuñ fi dara ñoom ñooy dimbale Sénégal yaa ngi dégg mhm. ñooñu su dawee dem foofu mun naa rëcc su neexee suñ ko laajee duñ ñu ko jox waaye nag Maroc gii mu nekk ko mu naqari ko su demee ci nijaayam yooyu danañ ko jële ma Mbaye Niang xaar ba sëb yaa ngi dégg. ok par force. Mhm. dinañ ko jël atte ko képp ku ci def loo xam ne du jaaduwul danañ la atte incha allah. Mhm. te mën naa la wax danañ leen atte de. ah bon mais est du indi fayanto aussi quelque part seex bi. du ñu. ma ne est-ce que loolu du indi ay fayanto ay redi ay fayanto. non fayanto fayanto amu fi duñ indi fayanto. man gëm naa ne lu muy def mooy la la Burkina def xam nga Burkina euh, waa ji ba mu yéegee ci coup bi lenn la wax. Mhm. dafa jël bind benn listam na diw diw diw diw diw diw diw. indi leen yéen ñoo ñu yore woon nangam. indi leen indi léegi balaa benn euh, soixante douze heures. waaw na indi xaalis. Mhm. tey of nag dama la koy wax de kayit boo gis ci senegal kayit boo gis. am nañ ko ka lekk lekkoon am nañ ko su xëyee na leen yéen ñi def noonu indi leen xaalis bi wallaahi danañ ko indi danañ ko goqi loolu du fayanto parce que xaalis yooyu. Mhm. deux milliards deux milliards tabax na hôpital ca Kaolack ñun Medina Baye ñu ngi am benn hôpital boo xam ne hôpital bi ñu ngi ko jox ku ñuy wax Lamine Tall Lamine Tall moomu benn entrepreneur moo gagné projet bi depuis boobu ba léegi nii hôpital bi demul fen parce que ñoom la rek. ñoom waa APR yi ñoom ñoo toog rek di lekk rek di naan rek. ok ay millions yu fa dem. léegi Mamour Mamour Diallo nag avec nos quatre-vingt-quatorze milliards yi nga xam ne sax Sonko moo ko révélé woon par la suite gis nañ également mbir mi fan la mujj jàpp nga ne lu ñu war a leeral la it. Mamour moom. moom moom moom moom kooku moom moo moo moo ñu yóbbu ci guut ak. gis naa ne sonal nga ko trop nag.